Imam Aliou ndaw yaa ngi koy dégg parce que moom it def na ci benn action yow nga defoon amoon taxawaay wu am solo ci xeexam. ba ñu mm-hmm. libéré ko tey yéen a ngi déggante. waaw bu baax a baax a baax imam bi ñoo bokk combat bi man ma dafa am euh, collectif ànd sàmm jikko yi. boo nga xam ni collectif des imams ñi ngi ci. Mm-hmm. des imams ñi ngi ci. Mm-hmm. Euh, imam yëpp yu bari ñi ngi ci euh, ay. daara yi euh, association des maîtres coraniques ñëpp ñu ngi ci mooy musulman yeeg yëpp mhm. euh, kilifa yu mag yi ci dëkk bi sëriñ yu mag yeeg ñëpp ñoo def benn association imam yi mhm. Mhm. di xeex lépp luy mbon nga xam ñoom Adama Mbuub Babacar Mbuub Cheikh Oumar Diagne xam nga euh, ñoom ñëpp ñu ngi ci ñoom ata tata Ndey Jóob ñu ay kilifa yu mag yoo xam ne murit xaaja tiijaan laa Ibaadu Rahman ñëpp a ngi ci moo tax euh, imam Ndao moom muy représenté Ligue des imams moom moom mooy moom mooy seen représentant ak Kaolack. moom dañ koo tere sax yaakaar naa mu ubbi école coranique foofu ca Kaolack aussi loolu it euh, noo ko gisee. waaw mooy li ma la wax rek xam nga dañu nekk ci réew moo xam ni euh, malheureusement système bi. ni muy doxee. Mhm. mooy ñun li ñu bëgg système bi nanguwu ko. Mhm. keroog maa ngi koy expliqué mais les gens n'ont pas compris ci yu bari mooy teg. Mhm. ma ni nous sommes dans un pays boo xamante ne nii. gars yi dañuy xeex ne nous sommes des musulmans. wala wala ñu ne nous sommes des chrétiens mais que tu sois chrétien ou musulman xamal ni sa diine. yow sa réew faalewuñu sa diine boo demee dëkk mel ni Allemagne sa impôt dañ koy dagg dañuy daggal sa dañuy dagg impôt di ko dugal ci sa diine yow pour nga mën a nekk sa diine nekk bu ci ay mais Sénégal loolu amu fa Sénégal église yi dañuy fay courant di fay ndox jàkk yi dañuy fay courant di fay ndox te tubaab bi ñoo wax ne la mooy ñoo ne la démocratie mooy quand la majorité l'emporte mais la majorité sénégalaise elle est lan elle est musulmane donc kon ci charte yi ñu war a dox ak loi yi ñu doxee mais loi islamique la war a nekk. charia charia la war a doxee mais loolu mooy dëgg. loolu mooy dëgg mais li gars yi comprendre boo nee charia dañuy jaxase suñu xel ba ñu yàq ni boo nee charia da ngay génne chrétien bi ci affaire bi mais non charia moo gën a respecter chrétien que république bi nga xam ne elle est maçonnique charia day jox chrétien àqam respecté ko parce que le prophète mm-hmm. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund charia en Makka mm-hmm. mais dafa amoon ay ñoo xam ne musulman mm-hmm. mu dëkk ak ñoom respecté leen teg leen seen norme ñuy attewoo ñoom ci li gëm cest à yooyu il faut ñu jàngal ko askan ñu comprendre ko mais mënuma concevoir nga ne yow julit nga tu musulman après ñu ne charia rek nga tëb dal ko nit ñi parce dañu formaté sa xel bi ba comprendre loo gis nga ñii di intellectuel ni yëpp wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin la ko yonent yàlla yàlla wax maanaam yow dañ la yónni ci univers waxu ko waxu ko xam nga lu univers mooy li nga gis ak li nga gisul li mooy yeneen planètes yi mooy mbindee fi yàlla bind ñëpp yàlla yónni yonent yàlla Muhammad ci ñooñu kon kooku daa mat sëkk kooku mat googu mu moo tax bu indee indi loi am ne lii la ko yàlla sant jullit yi dañ cee war a topp buñ ci topp ñu ngi def erreur xam nga mooy erreur bi yow da ngay ne imam nga nga ne julit nga LONASE mooy l'autorité nationale sénégalaise ñu moom ñu ko ñun xaalis bi nekk baaxul dafa xaram ñu jël ko di ko def ci trésor public bi di la ci fay di ma ci fay mu xaram jaakatu sàngara bi dañ koy dagg impôt bu ñu ko daggee impôt ah xaalis bi dañ ko jël def ko trésor public di ci fay di ma ci fay ñun julit di fay imam yi liggéey est-ce que dégg wax ji après ñooy ñun ay julit lañu est-ce yaa ngi dégg xale bu jigéen biy jaay boppam nga baal ma ci cagatu nga baal ma ci baat bi day faju ji cinquante pour cent ci li muy fajoo yow yaa koy faj maa koy faj cinquante pour cent yi moom moo koy fay dañ koy jël dagg ko impôt yóbbu ko trésor public day am carte am carte bi day fay ñu ne ko légal nga bu wanee carte bi policier policier bi ne ko légal nga mën ngaa jaay sa bopp mu nekk sama doom wala mu nekk sa doom wala mu nekk sa sœur nekk sama sœur Aysatu lay tudd baa mu tudd Mariane nekk chrétienne bu normal boo xam ci kër gu baax lay juddoo est-ce que da nga baax fu ma lay waxee ñu bàyyi ko muy cagatu te amul benn religion bu nangu prostitution ñu jox ko carte parce que la république est maçonnique la république diine la li gars yi comprendre da nga koy wax nit ñi duñ ko nangoo dégg te amuñu ko leen ko wax mooy république. diine la valeur yi ngeen di défendre valeur démocratique et cetera. non attends non ça xam nga démocratie dama la bëgg expliquer affaire xam nga boo ñu nekkee ci ñëpp ci démocratie ci ci république bi. Mhm. on est de casse démocratie république dafa am ay cëram. Mhm. république daa ay tànk xam dafa mel ni nga ñëw sa chemise. Mhm. sur mesure la dëkk bu nekk ak chemise am. ak mhm. démocratie am par rapport ak ay réalité ak ay valeur am ni muy tuddee. Mhm. loolu la rek démocratie loolu kese la mais dama ni. tey ñun en tant que musulman. lu ñu war a wax waxuñ ko. parce que mënoo yow ñu lay fay xaalisu jigéen bi jaay boppam impôt jaay ko sàngara bi nga ciy fayeeku lonage bi moomale la ko lonage yóbbu ay imam màkka ba pare nga taxaw ne ma musulman laa nga dem tribunal ñu lay musul am ci aada Sénégal da ngay dem moo xool ay fo Souleymane Baal les des histoires de Torodo nan la demee woon nañ la doon charia bi te mu nekk par respect ci lu am solo. mais foofu est-ce que joxoñ baaraamu tuuma suñu école bi. parce que yéen dafa mel ni li ngeen di xeex. mais loolu lañu wax. da ngeen bàyyi base bi di xeex. parce que tey bu ñu demee suñu mm-hmm. école ñu ne l'école de Jules Ferry. te mm-hmm. ñëpp xam nañ ne Jules Ferry c'était un raciste la woon. merci Ferry moom. dafa jàppoon ne nit ku ñuul. blanc bi moo ko war a yàq donc yéen seen xeex normalement fa ngeen ko war a viser. mooy la source yow pour yow lan moo tax. Hmm? Serigne Touba Khadim Rasoul Serigne Saliou Mbacké. Hmm? dindi école française Touba. Hmm? lu tax parce que ils ont compris c'est-à-dire xam nga ñun malheureusement. mooy système bi da lay seel a ŋànk. boo nekkee ci am réew. réew moo xamante ni mhm. am nga fa Serigne Touba. Mhm. nga xam ni dafa bind Serigne Touba bind ba bind loo xam boo ko jàngee. sept tonnes boo non ma la Serigne Touba. Mhm. li mu bind boo am na loo xam Serigne Touba da ko bind soo ko jàngee di uti at dem di uti da ngay am. Sénégalais war nañ sonné ni Baye bind na bind ba science ci xam-xam loo xamante ni kenn mënu ko dékku ci xam-xam abi lu doy waar Alaaji Maalik jàngale na wax na ba wax yonante bi ban heure lañ ko denc kana kana ko denc fan lañ ko suul lépp te loolu mooy xam-xam boobu Sénégal da ko am xam-xamu sunna am na fi Sénégal xam-xam lépp luy développé réew am na fi mais malheureusement mooy ñun tubaab bi dañoo ñëw tegal ñu république bàyyi ñu fi ay ñoom Macky Sall ñoom Senghor bàyyi fi ñoo xam ne ay complexe lañ ay Abdou Diouf ne ba léegi mi ngi liggéeyal francophone tekkiwul dara le président le plus paresseux xam ba léegi ne mi ngi liggéeyal tubaab bi topp ci loolu ñun ñu topp yooyu complexe yooyu bàyyi li nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp Cheikh Anta Diop dafa wax bu mu ne mu ne aucun pays ne peut se développer sur la langue d'autrui déjà complexe yi rek mooy déjà boo déggul tubaab. Mhm. yow dañ naan la non yow mënoo exprimer wu quoi. parce que li nga war a wax boo ko mënul wax ci tubaab mënoo koo wax. Mhm. te des fois nga gis koo xam ne déggul tubaab yor xam-xam boo xamante ne bu ko waxee dimbali na xeetum lëmb. Mhm. complexe foofu la commencé dégg nga tubaab làkkal tubaab déggoo tubaab làkkal olof. ñoom bu ñu bëggee dégg tubaab bi nga tra nga kii wax traduire leen ko. c'est-à-dire c'est-à-dire complexe yooyu. mooy d'abord école française école française nga xam moo fi nekk. Ah. bu doon dëgg la dañ ci fexe imprégné dugal ci njàngalum sëriñ si. nañ ci bàyyi français ah, parce que langue français du français yi moomuñu quoi. art la rek c'est de l'art. la langue c'est pour pour communiquer. Absolument. c'est très simple mais maintenant. langue française mais ni ma amee prof anglais. anglais mooy lan làkk la rek comme njaagoog soose. français làkk la comme tukulóor ak pël. léegi na am alxuraan. na am prof alxuraan am prof arabe comme ni muy amee. mu am prof buy jàngale alxuraan. catéchisme mu am prof buy jàngale diine. pour chrétiens yi. di jàngale catéchisme. mais loolu bu amee. mais réew mi xale yi bu ñu jàngee. li Serigne Touba jàngale. mais attends mais bu jàngale Baye Niass jàngale li El Hadj Malick jàngale mais Sénégal du mel ni mais ñun dañoo war a góorgóorlu ba Sénégal suñu doom yi jigéen ñi dootuñu jureeti ku mel ni Macky Sall non c'est très important parce que école yi ñi muy formé nii après ay Macky Sall la juróom parce que problème mu Sénégal problème mu nit la jàmbaar sànq damay romb damay romb euh, Liberté 5 gis rigole yi mhm. mooy fi ndox yi di jaar parce que ah ñu koy sàcc di dindi feer yi quoi waaw loolu nag Macky Sall yoonam nekku ci. loolu citoyenneté la tamit ma la expliqué nii si nekk xam nga problème mu nit la xam nga citoyenneté boobu. mais Macky Sall. Mhm. Macky Sall ci mbedd bi la nekkoon Macky ñun la suñu produit la jàmbaar. Mhm. ci kër la jóge mhm. ñaari nit ay sénégalais ñoo ko jur. ministre yi ñii nekk ñii sàcc loolu c'est des sénégalais ñoo ñoo jur Macky Sall rek. ñoo ñu jur ñun ñëpp c'est nous sommes des sénégalais. léegi problème bi mooy problème mooy léegi li tax ñun nit mën a taxaw. sàcc loolu dem jaay ko jaay ko 5000 francs doomu aadama jóge fële yor motoom dal ci daanu dee moom mu régler problème mu nit dee. Mm-hmm. wala xale pëtëx ci lab de te amul conscience boobu conscience maanaam ngay am ngay am conscience ngay nga toog. nitee ngay ngay xalaat quoi sa digganteeg sa borom nga wéet gore nga wéttali ko gore. Mm-hmm. loolu mag ñi ñoo ko mën a def du tubaab bi ñoo koy def ci ñun. Mm-hmm. loolu du école moo koy def ci yow.